waajur Jimbori euh, euh, souvent da ngay da koy dégg mu naan moom woyam dafa bëgg mu dem partout dans le monde euh, parce que gis nañ ni Wally tëgg na fi Mali tëgg na Mali Malien yëpp génn ñëw dooleel ko ñëw jàppale ko parce que man gis nañ suñu ay na ay nataangoo laaj ko ko mu ne leen li ma leen doon wax rek ba tey foofu la laa nekk nee naa leen sama musique dina war a àdduna waaw léegi xam nga bu dee tëgg na Mali mhm. tëggagul Burkina Faso tëggagul foo mm-hmm. est-ce que ki toog ak moom du ko laaj loolu gën ta jaadu mu koy laaj ay affaires yi njàpp. waaw mais tamit kon bi la rek xëy na tamit tax Aba tamit mu laaj tamit loolu. mais xam nga pour man. xoola mm-hmm. euh, bu léeg-léeg. Mm-hmm. Euh, showbiz. xanaa xam la avance euh, showbiz bu nekkoon oto. est que xam nga kan moo yor direction bi. kan direction bi yéen a ko yor parce que nga fu mu toll nii. Mm-hmm. ñi meew ma fee wax loo ma laajut. kon boo la fait que nga toog di tudd ay njàpp rek. Mm-hmm. pour ñun sax xam-xam dafa kale. parce que man. Mm-hmm. bi bi Aba laajee Waly Seck affaire njàpp. mooy wana ne bopp Aba doxatul. xam nga Aba journal animateur. non Aba xam nga tey yàlla moo njëkk a wax ni sama nitu tey gàcceel na sama nitu demba gis-gisam. gis-gis bu ndaw laa ko jàppe man man bu ma dajeek yow ay affaire de njàpp du ma la ko laaj. ay posé si sa grandeur yow parce que nii nii yow gis nga sooy wax ak man si xoola man journaliste yi ñëw si man yëpp mën naa laa wax seen grandeur fan la toll ak seen personnalité su ma la dégloo nii man soo waxee ba dem rek dinaa ni kii lii la capable wala soo waxtaanee ak man boo demee noo noo mel ma xam ko mais nit ki euh, naan ko njàpp ak affaire yooyu loolu mooy wane ni yow sa xalaat sam xel guddul ama ba moom booy seet création Wally sek la mhm. mais rompewul comme ñun ñun dañ rompe ba ñëw ñun dañoo rompe de jaar fu metti et ça xam ma coon sekk moom laa gënoon bëgg sama àddina mais dama daan gis kër coon sax mais au que ma dem fa mais dama ne déedéet damay liggéey ba benn bis coon gis ma ma doog a dem parce que am na benn affaire bu ndaw boo xam ne mus na ñëw fenn ñu koy kii xam nga mu def ko ak man mhm. faf yàlla yàlla dogalul loolu mais mun est-ce que mënu woon tëb rek dem ne ko maay booy bi nga xam ni bi nga tëggee fii mu def nii defu ma ko de. Mhm. dama nekk ci internet bi di rayante di rompe. Mhm. comprendre la. man lu ma doon nit defu ma ko de. Mhm. wax leen rek. billaay maa ka def sama bopp. dama ñafe ñëw. abaa rompewul mais la fait que nga toog ak Wally Seck di ko laaj ay affaire u njàpp loolu xalaat bu ndaw la. nit ki da nga àdduna bu tolloo fii da nga koy yóbbu nii. yaa ngi dégg parce que fii booy seet xalaat yi doxatul parce que xam nga ne xalaat doxatul voilà nit dafa am ñaari affaire yu koy composé xam nga ko xel mi ak xol bi léegi xol moo dox xel doxatul parce que moo tax réew mi paccaxoo kenn ku nekk li nga bëgg moom ngay forcer mu am soo ko mënul doxal yow nga ut compagnie bu la jàppale pour nga doxal lool ba dañ ciy dem sax nit day bëgg doon ñu ne ko doo fi doone ay gang par gang lañ def. mais bu ma toogoon nag moom dama koy laaj projet bi lu tax nga wax ni da ngay in musique bi da nga koy international nga tëgg fii fii mënoo faa tëgg. luy luy kii bi laaj ko na ko tournée yi nga def bërki démb ci Sénégal lan nga si gagné ak mbooloo mi nga àndal lan lan nga ciy ñàkk lan nga ciy lii lan nga ciy laa est-ce que du woon lool loolu lañ bëgg a xam mais da gis ku toog ak Wally Seck di ko laaj laaju picc mais mais euh, mais tamit tey euh, est-ce que nekku ni tamit ñoom euh, xaritoo gu ñuy xaritoo ak Wally wala jege bu ñuy bu ñuy jege tey Wally Seck ba tax na ñoom bu ñu ko bëggee sax laaj sa dara sax dañuy naan noo dañ koy bañ a laaj lii tem ñu vexé ko. noo pour nga laaj Wally lool. Mhm. mais Wally lan la. waaye nit la comme lan lan la du waykat. artiste la. kee lan la dafa présenté wu comme présentateur. waaw présentateur léegi fu mu toll nii yow. Mhm. li ngay doon doon sama jigéen mm-hmm. da da ngay nekk sam sama jigéen ba yow da ngay bàyyi sa liggéey nii gisoo fu mu toll nii li ngay war liggéey fañ la jëlee di la fay mm-hmm. yaa ngi topp li nga war laaj mm-hmm. man tamit maa ngi topp sama ligne fu toll nii buñ nee action mu ngi mel ni xam nga footballeur bi numéro 9 bi foog mu ngi daw ailier bi di centré mu mën a dugal boo toogee man bu ma toogoo waali dama xool en tant que waali Seck mii nangam naa non li ma a def laay def gisoo bu may liggéey fële Feeling Dakar kaa bu ñu indi bu dee moom la lu ma si war a wax laay wax suñ gars yi foofu raam daan aussi ku si def loo war ta def damay dal si kawam da may gis am noo la amul ne non gars yi lii ñu def waruñu ko def mais abaa laaj yooyu mu doon laaj loolu daanaka mënoon nañoo indi Mouhamed Cheikh rek teg ko doomu waali bi mu koy posé loolu loolu dafa gunee dafa des nit soo ko tegee muy def luy jëriñ réew da nga koy indil nit ko xam ne mun na ko laaj loolu xam mun nga ko laaj ne ko mais tabaski gi pourquoi yow nga génnee trente million jënd ko ay xar jox ko nit ci ban anam fan ngay jëlee xaalis bi xaalis bi boo ko génnee ñaataa fay des est-ce que yow di nga am dara lan mooy sa projet yaa ngi dégg laaj ko laajaat ko nag wër bi mu dem nga ne ko mais sa famille nan ngay dundee xale yi tey sa jabar bu amee doom liir liir bu bees bi jaaga bu ndaw waa ndax yow jaaga miin na la wala miinu la. waaw yow moo ñii dañoo xam lu ñuy laaj yow ñii di toog di jaxase rek xam nga ñooñu ay ay kon lañ rek yoo xam ne nii dañoo ñëw nii di konkonlu. d'accord xam nga konkonlu ah. la wékkat bi di wax naan foo ba waaw xam nga waxal rek yow li ma la wax nii leer na la lii mooy wax ji mais ay njàpp yaa tas groupe Sidi Diop mais Waly Seck sax xanaa moom war naa mën a sonn ci Sidi Sidi Sidi Sidi est-ce que du toog ba guddi sax noppi di Sidi Sidi wu ah Waly no Sidi tamit noppi di Waly Waly lu ah soo biis duñ ko defee noonu artiste bi soit boo ko gisee da bu njëkk ba ñun buñ musaan indi Thione Seck wala kenn dañ koy indi journaliste bi gën a ngand bi gën a aay teg ko si kanamam kooku di ko laaj luy jëriñ réew mi parce que gis nga loolu Wally Seck di def bokk na si développement dëkk bi Gàmbi dem nga fa def nga fa trois jours trois jours yi nga fa def noo ko defee loolu loo fa perte loo fa gañe lu tax yow saa bu 24 décembre jotee fekk la Gàmbi ban relation nga am ak ñoom ñi ngay teg ñi ñii dugg nañ am na ñu ñu téye si bunt bi wala ñii kii nañ ñii kaa nañ mais yow mais jël aba boobu nga xam ni sawaay ah da ngay waaru quoi. d'accord Jumbori ama lay lay feew feew naaw naaw xam nga aba boo da nga koy yóbbu si yëfi lépp yaa ngi dégg yëfi lépp ko man mais xam nga lépp moom du dëgg. Mhm. mais teg ko foofu muy lépp xam nga yaa tas orchestre Sidi joob mhm. mais waal Seck kon Sidi Diop mm, mm, orchestre sam mm. neex naa tas de. waxal rek ah ñoom ma coon Seck lu nekk waal dina koy jëf. lan la lan la produit Ndapo mi produit la. Ah, voilà ah, yow eh, eh, lan la moom. ah sama waay la de mais xaar xaar xaar xam am na loo xam ne. waaw da waaw da waaw da may de waaw si Baye si Baye taxaw ci léegi taxawal ci Baye Zal ñu waxtaan taxawal si Baye Zal Baye Zal ménager la du ndege. ménageru kan la nekkoon na fi manager Sidi nekkoon na fi tamit euh, manager Mandiaye Seck ba mi de Mandiaye Seck la woon. léegi manager Sidi Diop manager kan la woon. manager keneen la woon. kan la nga ko. ma ni manager Sidi Diop nga kan manager kan la woon. Mhm. manager Waly Seck la mhm. xam nga ko. Abu Cuba day liggéey xaalisam la yor fu mu mën a génnee xaalis lay wut. Mhm. pourquoi Baye Sall di toog benn place fu mu mënta amee xaalis du dem yoonam. xaalisam la yor. kaset nga koy defaral mu def ci alal génne ko def ay affaire am jaay. Mhm. gis na ni du euh, mhm. amul droit seeti keneen mu liggéey moom. lii la de Baye Sall di liggéey de. Baye Sall bokkul Baye Sall bokkul ci groupe. mais boo déggee la fait que manager rek. Mhm. kooku yaa ngi dégg. bokkul ci groupe bi. dafa ñëw pour business. ok à tout moment mun na dem yoonam. mun na dem yoonam. Mhm. mais yéen da ngeen a xëcc ñi nga xam ne. Mhm. dañoo sopp waali sopp waali. Mhm. ak ñiy liggéey ak waali dee dee leen leen tàqale. d'accord parce que barki démb Youssou Dieng wax na benn wax ñoom diw diw bokk ñu si ñun. du noonu. yéen ngeen waali euh, tamit démb euh, tamit euh, dégg nañ abanaan ko. waali ñan ñoo bokk ci sa biir staff mu ne leen ñi ci bokk xam nañu seeni bopp mais ñi bokk tamit faramaaren tamit xam nañ tamit waaw comme cela veut dire que ni dafa am ay pàcc-pàcc nit ku nekk ak xam nga tey yàgg na tuuti. Mhm. ni wax Youssou Dieng dafa bàyyi. Mhm. parce que dafa am benn xaalis bu ndaw buñ ko waroon jox joxuñu ko du noonu. Mhm. xam nga ok kon Youssou Dieng. xaalis moo ko booleeg waali liggéey. mais ñeneen ñi ngi ñi mu tudd seen tur. ñooñu bëgg moo moo leen booleeg waali kon ñële ñoo gën ñoo gën a bokk. waali xamul ñu bokk si moom. am na ñu bokk si waali ñu xam ne waali gisu leen ba tey. musique ñu koy doxal doo leen gis. mooy les wallaay gis nga bëri na ñu lay jege nii. ñoo ñu bokkuñu. ñu sori te bokk. ki la bëgg ci xol kooku dafa bokk. boobu mooy public waali bi. am na fa ñu xam ne feeg waali ñëwul du ñu yéeg si seen bi. dañ leen di téye ba waali ñëw. mais ñooñu la ñuy jël naan jóge nañ fii ak jóge nañ fële ak jóge nañ fee mais ñooñu. fu ñu mën a jóge xaritu waali lañ mhm. waali nag buy ñëw ay xaritam dinañ leen bàyyi mhm. mais feeg waali ñëwul yow duñ la bàyyi de parce que daan nag dafa naa ni ñàkk fulla ak fayda mhm. bu bu doon ñàkk fayda rek moo tax muy dox heure bii du agsi fii